sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan mbokk ya dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek wopp ba coronavirus tey ci àllarba bi ci 1653 euh, tests yi nga xam ne rek réalisé nañ ko 276 ñoo ci euh, jot euh, positif ci 276 yooyu nag am ci 72 cas contact 204 cas communautaire ak 12 yoo xam ne rek jot nañ cee ñàkk seeni bakkan coowala Ousmane sonk fële ca assemblée nationale député yi nag dinañ fa amal ab ndaje rek nege euh, suba li waral euh, boobu leen ndaje rek moo di nag waxtaanee lépp lu jëm rek ci euh, coowala Ousmane Sonko bi ndax malaanu kiiraay bu mu am rek dinañ ko teggi waaw wala déet dinañ ci am lu ñu leer nege suba. ba tey rek ñuy àddu ci mbirum Ousmane Sonko ki nga xam ne nag moo di borom këru Ndeye Khady Ndiaye nekk nag ki moom salon boobu 18 boot yi. daal dina rek amal ab sedd démb ci ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko moom nag la mu xamle rek mooy euh, bés ba nga xam ne rek Ousmane Sonko ñëw na foofu rek di maase wu ca kër ga la ko fekk waaye rek déggul benn yuuxu wala biir boo xam ne rek wane na ni kii di Adji Sarr Sonko da ko violé. collectif pour la promotion et la protection des droits de la femme ñoom it daal dinañu àddu rek ci mbirum Ousmane Sonko boobu. ñoom nag euh, la xam ne rek moo di euh, dafa am ab déséquilibre boo xam ne am na ci coow li ndaxte ak lépp lu mën a xaw rek wala loo xam ne aji def na ko dafa am àq ak yelleef donc ñoom la sàkku rek moo di ki nga xam ne moo di aji saar nañ ko déglu mu joxe li nga xam ne moo di version wam rek ci mbir mi ba tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV kii di Ousmane Sonko nag moom weetul benn yoon ci xeex bi nga xam ne rek mi ngi koy xeex ndaxte mouvement bi di Y en daal di nañu feddali rek seen i kóllëre ba tax na rek dem nañu daal di ko seeti nega ni démb foofule ca këram ca cité kër góor gi. di wax ci leneen ki nga xam ne nag moo di Alioune Badara Ndiaye nekk nag rakk ci ki nga xam ne moo di Aziz Ndiaye di promoteur de lutte moom nag dañ ko daal di jàpp démb rek li ko jàppee nag mooy li nga xam ne rek moo di déten détention et usage de drogue moom ak xaritam boo xam ne rek mu ngi wuyoo ci turu Abib Faye kii di Alioune Badara Ndiaye nag dinañ ko àtte rek ne nga ni euh, suba incha allah. voilà mbokku téléspectateur Equivox TV lii moo fi jotoon ruus ci xibaar tey ñu leen jox di daje rek ëllëg incha allah.